mënunoo ñëw comme ni ko président waxee léegi rek mbas mi moo tax ñu xaw a wàññi activité yi waaye kon tey ji délégation Dakar bi kenn du fi xaj kon ñu jël kàddu gi jox ko xale boobu nga xam ni mooy sunu doom ngeen tàcc ko ñu tudd ko xaadimu rasul muy Amadou Bamba Mboup wala moo wàcc a aouzu ah, billahi minal sheytaani rajim euh, bismillahi rahmaani rahim euh, ñu sant yàlla bu baax bim ñu mayee fekkeek tal euh, di julli ci Seydina Muhammad salallaahu alayhi wa di ñaan bës bi niñ ko commencé yàlla na jeex ci jàmm di nuyu ñu fi nekk ñëpp di jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ni ñoom lañ fi fekk si waaw ñi nga xam ni ñoom lañu fi fekk si ñu leen di jiital ci nuyoo bi muy euh, président Meissa Ndiaye ak Chérif Diaw ak euh, l'inspecteur de la jeunesse ñi ngi koy nuyu Almami Badji ah di leen sant bu baax ndax li tax ma leen di sant activité bi ku ne xam na ni dañu nekk en plein Covid jamono gii nii euh, activité yu bëri taxaw mais ñu fonk seen kàddu affaire bi serré booy seet mën naa ni jeudi à 17 heures ci la ma Meissa ak Chérif woo confirmer affaire bii nii boobu li ñu bëgg rek mooy yéen jeunesse bi parce que ñoom li leen ñor mooy xale yi fi nekk nekk ay mbër ak ñeneen ñu dul mbër jàpp ci dara di leen jaale aussi démb li fi xew yëg nañ ko ñun waa Ndakaaru di leen di leen ci massawu mooy juróom benn xale yi nga xam ni dañ doon dugg ci géej gi far suñu borom jël seen bakkan loolu noonu yëpp bëgg rek dem góor góorlu moo tax ñu ko doon def waaye nag ñun li ñu fi indi mooy rek la solution boobu noonu moo ñu fi indi di nuyu bu baax ñi nga xam ni ñoom laa àndal muy waa association FILS parce que man ni ko Ousmane père Ousmane Diouf waxee rek man xale laa mais ñoom samay kilifa lañu man sans ñoom man duma dem ku ci nekk ku ne xam ne ni association moom boo ko wootee du lu lay fay wala salaire bu lay fay déedéet dafa nekk loo xam ne volon da ngay volontaire rek ànd ceeg nit ñi kon nag loolu man awma seen fay mu di nuyu suma père Ousmane Diouf mi taxaw mi nga xam ne moo yor suñu communica communication traditionnelle di nuyu Ibrahima Ly secrétaire général association FILS di nuyu Ndiaga Diarra Thioune mi nga xam ni mooy chargé des relations extérieures nekk agent wu Tafatine luñ ko woo mu bàyyi léppam ñëw gis détermination bi ne ci ñun di ci ànd ak ñun di nuyu Ibra mbay wax dëgg yàlla mook bëgg fàllu ñoom ba may soog a tàmbali la li père Ousmane wax di tëgg làmb la ñu yàgg jàpp ci affaire yi ak ñeneen ñu ñëwul awma seen fay ñu yàlla rek a yor seen fay yàlla na leen yàlla fay du nuyu les partenaires technique parce que partenaires techniques yi dañ ci am solo parce que ñun association bi maanaam kuréel bu ñu taxawal la pour jàppale leen ngeen am formation ba mën a am xëy mais ñun du ñun ñooy former maanaam kuréel bi ñu taxawal ñi ñu jàppale mooy partenaires technique yi kon ñooñu tamit amuñu seen fay li may wax rek nit ki bu fekkee ni euh, dañu toll jamono goo xam ne entrepreneuriat dafa xew nit ki fekkee ni. Euh, tey euh, nit nit nit nit nit du tardé avenir am parce que li ñu wax léegi rek dafa am ñett mbër yoo xam ne ma leen di jox euh, ay cas ci ñoom muy Tidiane fay ak caatu Yaraax ak ama Amandaw ta Tidiane fay ku ne xam ne ne Lansar la ne nekk mbër boo xam ne mbër bu amoon coow la dem ba benn moment kenn déggatu ko mais yàlla dimbali na ko bi mu ñëwee ba adhéré biir association fis ci lañ ko formé ba actuellement ile est devenu un fonctionnaire mi ngi liggéey on ONFP caatu yaraax noonu ama amandaw noonu ku ne xam na ni ñi ngi contexte Covid làmb lu baax la ndax ñun dañ koy dund ay promoteur lañu mais nit ki dafay préparer carrière am nit dafay am formation professionnelle tey moment bii nii kañ la làmb gëj a am bu fekkee ni yow bërewoo tey jàppoo ci dara lan ngay def pour dimbali say waajur wala dimbali sa bopp xam nga loolu mënta nekk moo tax nag ñun li ñu fi tax a ñëw chance bi ñu am pour ngeen xam ne rek lii lu mën a ne la parce que def nañ ko defati def nañ ko dakaar def nañ ko Foundiougne def nañ ko Thiès ñi ngi koy def fépp li ñu bëgg mooy jàppale leen yéen ñëpp ngeen am formation insertion ëllëg yéen ñëpp ngeen mën a am xëy kooku nag ñi ñu koy gërëmee mooy partenaires yi ñuy àndal parce que ministre de la formation professionnelle muy Dame Diop bi mu ñu recevoir waxtaan ak ñun dafa kontaan bés boobu parce que dafa nee lii dafa nekk initiative boo xam ni président Macky Sall daf ko ko sant daf ko newoon Dame na nga fexe li jeunesse su Sénégal yëpp. ku ci nekk na am formation am insertion tey boo leen ñëwee ak ni làmb yaatoo ak ni mu amee coow ak ni xale yi amee jomb ngeen ñëw ne ma damaa bëgg ñu former leen insérer leen kooku man dama ciy taxaw décembre bii daaw la 14 moom moo ñu recevoir à Diourbel bi mu ñëwee ànd ak tous ses directeurs ne ma na fee ñëw pour liggéey tey jox leen instruction ñoom ñëpp ne leen signé leen convention ak waa FIS tey bu ñu demee ba direction de l' emploi ku ne xam na ni direction de l' emploi moo tey Pape Modou Fall bu yabalee monsieur Dione mii pour mu ñëw recenser leen xool na leen leen di jàppale pour insertion kooku xam nga kon dëgg la tey bu ñu demee ba ANAMO Maodo Malick mbay mi nga xam ni moo ñu njëkk formel trent lutteurs tey ba ñu nekk sérigraphe lutteurs yooyu ñoom waa waa mooy yaawu jaal caatu yaraax ñoom ñëpp ci lañ bokkoon kon kooku xam nga ni dëgg la ku ne xam na ni horticulture muy wàllu mbay soble bi ak légume bi tey ku ne xam na ni mbay dafa am solo tey bu Macoumba Diouf yabalee yabale Ablaye Jaxate kon loolu dëgg la kon nag ñun li ñu leen di conseillé parce que te yéen yéen bëri ku demoon di fay formation bu loon convention bi ñu liyee ak ñoom ku ci demoon di fay formation garde corps rapproché sécurité rek man dundu naa ko def naa ko 6 mois itali def naa ko fii di nga fay 500000 francs CFA mais grâce ak convention bi ñuy signé ak waa ak état tey carte membre bu deux mille francs rek ngeen di jënd la la la formation c'est gratuit kon nag ñun bu ñu ñafee ba am loolu jàpp naa ne ñu ngi liggéey ñu ngi ñu ngi jàppale réew mi. kon nag loolu noonu ñi ngi leen di encouragé yéen ak ñi fi nekkul mbuur ku ne xam na ni immigration clandestine bi fii mbëkk mi daf fee laal bu baax a baax kon nag tey li ma leen di conseillé mooy ngeen gëm seen bopp tey nit ki même boo fekkee ni jàngoo école formation professionnelle kese boo ko amee tey war ngaa mën a am métier muy mécanique di di di sécurité côté boobu noonu yëpp ñun dañ ciy yëngu kon nag ñu ngi leen di encouragé ngeen jege association fii si kanam Ibrahima li techniquement. muy euh, SG association bi dina ci développer pour waxtaan ak yéen loolu noonu daal euh, moo ñu fi moo ñu fi indi di gërëm bu baax nag kii Maysa Ndiaye tuddu léegi muy Abdou Lahad Sarr di daaju ministre des infrastructures transport terrestre ak désenclavement wax nañ dañoo moom sama kóllëre la yàgg na ça fait presque plus de trois ans mbuur da ko ñor parce que dama ko seeti waxtaan ak moom fekk mu may cité quelques lutteurs yoo xam ne bëgg nañu jàpp ci man ko da ngay fexe nga approché Maysa Ndiaye ak Chérif jaw ñu xool nan la ñu mën a liggéeyee côté boobu pour mbuur xale yi mën a kii mais bi mu yëgee loolu def ci woo Maysa am ci taxawaay ci bés bi kon kooku ku leen bëgg jàppale rek moom moo am yéene boobu noonu li leen encouragé daal mooy jege leen association FILS carte membre yi mi ngi fi ngeen adhéré partenaire technique yi ñi ngi fi de ce ñu recensé leen bu ñu delloo dakaar techniquement ñu xool kañ lañ fi mën a ñëw ci former leen ci formation yi ngeen bëgg formation yi nag bëri na façon après Ibrahima li dina ci gën a xuus ak yéen di kontaan lool nag tamit ci press bi tey ñi fi taxaw parce que ñu bëri dakaar lañ jóge ku ne xam na ni Lamine Babacar ak Basirou Wasaare Lam ak Iba Kane yabal na fi euh, mon frère Bari ku ne xam na ni euh, presse la boo xam ni mën nañ ni Sénégal yëpp ñëpp a leen xam macha allah ñi ngi liggéey liggéey bu mucc ayib boo xam ni communication ñoo koy àggale fu ne kon nag fonk bés bi. ak fonk président Meïssa Ndiaye ak fonk fils moo tax ñu bàyyi Dakar seen activité yëpp ñëw kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm Meïssa maa ngi leen di sant bu baax yow ak Chérif li ngeen daj ci bés bi ak ni ngeen ci sonnee ak dernier moment yi nu mu méttee ku ne xam ne ni Sénégal dafa jaxasoo ngeen fonk seen kàddu bëgg rek xale yi euh, macha allah ñu ñu ñu situé leen ba ñu am formation kon nag loolu ñu ngi leen si sant di leen gërëm wasalaam ñu ngi ñu ngi ziar ñëpp nag jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf